Assalamualaikum, je suis ravi de vous retrouver encore une fois sur votre chaîne A2S Pro avec un immense plaisir. Nous avons dit au Sénégal, c'est flagrant, c'est du banditisme d'État. Comme nous avons dit, la colossalisation. c'est ce que ñu ñëw fait bureau en tant qu'inspecteur des impôts et domaines que fonctionnaire de l'État, mais mel ni kuy jël bandits enlevé dem séquestrer ko ça c'est de la séquestration judiciaire mais je me demande dans quel pays sommes-nous quoi mais Bassirou Diomaye Faye li wax c'est la colossalisation. parce que les kenn masu ko gis juriste yëpp nee nañ lii masul am fenn benn soi-disant procès en diffamation nous ñu le 30 le 17 ñu avons jàpp nañ procès en appel naan dañuy accéléré di njëkkalante ak 2024 pour bëgg lan nee nañ dañoo bëgg a invalider rek candidature Ousmane Sonko te loolu ñëpp xam nañ ko mais loolu du fi am nit ñi dañ leen di jaay seen bakkan bu leen leeree muy jàmm du ay ñetti juge ñaari procureur yoo xam ne Macky Sall moo leen teg foofu du ñooñu ñoom ñooy briser rêve des millions de Sénégalais yi nga xam ne dañoo topp Ousmane Sonko am ci moom yaakaar Ousmane sonk nekk borom mbooloo Sénégalais yëpp bëgg ko du yéen yéenay briser rêve boobu noonu di yéen. yéen ay éliminer Ousmane sonk yéen loolu da ngeen see tuuti gàcce gi justice di teg euh, Sénégalais yi ci àdduna bi gàcce gu ko gën a rëy amut da ngay sax yow pour nekk sénégalais ndax suñ justice bii nii juge yi nga xamante ni ña nga fa nekk ay juge intègre dañoo rus am gàcc te ñemewu ñoo wax parce que obligation de réserve bi la mais man su ma nekkoon magistrat tey nekk juge man jaral na ma ma def comme juge dem

maanaam gàcce gi am justice dafa jéggi dayo quoi dafa jéggi dayo jël justice bi di ko foowee di foowee sénégalais yi yàpp sénégalais yi di caaxaane sénégalais yi te lépp lu ñuy def ñu dañ koy xam jiitu leen ci ba pare wax ko xam ne lii lañ bëgg objectif bi lañ am setal Mame Mbaye Niang un vaurien Mame Mbaye Niang daa set bañ koy setal Mame Mbaye Niang kenn da kaa mën a setal jël vingt neuf milliards sénégalais yi luubal ko war a leer procureur bi nek l'avocat de la société war ko top mu leer mu naan day top ku toog ku toog un leader politique wax rek ne ki amna na rapport bu ko épinglé tax ñetti nit dee ci ah hein? anticiper vacances scolaires ay station ñu taal leen ci toj ay magasin wu jàmbur hein dëkk bi nit ñi nek fitna ñoo liggéey banques yi tëj ah xoolal loolu ñaata milliards lañ ci perdre est-ce que loolu setal jaru Mame Mbaye ak laver honneur Mame Mbaye jar na ko Mame Mbaye dafa tekki dara Mame Mbaye nekk un vaurien un imbécile de classe exceptionnelle qui ne représente rien dans ce pays Ousmane Sonko dafa nekk moroomu Macky Sall sax bay nekk moroomu Mame Mbaye Niang ñuy foowee réew mi di fowé sénégalais yi lii dina dakk de billahi wallahi watallaahi lii dina dakk dina dakk ci nii wala mu dakk ci naa Sénégal moomu leen ko Donne-nous ko à imam. il faut que ça soit clair il faut que Il faut di si basirou Diomaye fay melni ni kuy jël si un voyou quoi Hein? di di len di len quoi ci moment yow bandi nga ak Macky Sall ci de Macky Sall hein? ay quatre milliards ñu tuddu len ci defu dara lu dul dañ leen di récompenser sax jox leen ay poste de récompense di ñaawal nit ñi képp ku def lu bon Macky Sall ñëw encouragé la sa lu bon loolu ngay def su fekkee moom nga àndal soo àndut ak moom mu yebal police wala gendarmerie ñi ñëw ah enlever la mu yóbbu la justice ñu séquestré la mais loolu dafa ñaaw dans un état de droit deru Sénégal dafa yàqu ci àdduna bi te jii France assemblée nationale ba sax. ah forfaiture bi am Sénégal ak dictature bi fa Macky Sall bëgg installé sen député dañ siy waxtaan di ñaawlu ah. secrétaire d'état américain même chose hein mais li dafa dafa dafa ñaaw quoi li yëpp pour semer la terreur hein, pour faire peur aux gens intimider les gens, pour bëgg éterniser au pouvoir man ta nek nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs

ba ne yow yaay toog di jiite Sénégalais yi par force Sénégalais yi vomir nañ la bëggatuñ la yàq nga Sénégal yàq nga jikko yi jaxase nga nit ñi tas nga këru nit ñi abal ñu dañoo doyal ci yow on en a léegi daal Sénégal ñi ànd ak Macky Sall daal ñoom ñooy am jàmm ku àndut ak Macky Sall yow daal am doo am jàmm quoi sa xalaat sax boo ko waxee moo xam ci post Facebook wala Twitter wala nga génn wax sa xalaat

ils vaquent à leurs occupations am na ñoo xam sax Macky Sall daf leen a def ay ministre ana ñi nga xam ne wër plateau yi di menacer nit ñi de mort di saaga nit ñi ndey ana Ahmed Suzanne Camara kooku lan la fi waxul lu graaw lan la fi waxul la la wax nii loo xam heure bi waroon na ko fekk kaso te Ahmed Suzanne Camara ci ñu gën a ñàkk fayda ci APR la bokk tekkiwul dara APR moom moo taxaw fii ne Fulbert Samb

bii ñuy passé le 16 mars jouru procès bu ñàkk xorom boobu noonu xaw ma procès en diffamation xaw ma ne dem leen kër Ousmane sonk ngeen taal këram su ngeen ko fa fekkee ngeen taalaale ko moom mel ni daal Ousmane Sonko daal benn sagaru doomi aadama la bu nekk Sénégal ay nit ñu tekkiwul dara parce que Macky Sall lañ àndal taxaw di ko menacer de mort kilifa gu toll ni Ousmane sonk des millions de Sénégalais topp ko am ci moom yaakaar ñuy acharné wu ci waa këram. xoolal nu ñu def Bassirou Diomaye Faye lii ñaaw na trop lii mooy lan ñëw indi seen pick-up ah soluñ tenue di def guet-apens lii guet-apens la quoi mais lii c'est du banditisme d'État xanaa lii Corée du Nord sax xanaa lii amu fa lii mooy lan lii nag vraiment dafa ëpp te lu ëpp tuuru nañoo nekk dans un état de droit ba pare ki nga xam ne moom moo jiite réew mi ñu ànd ak moom am nañ droit def lu leen neex dara du leen ci fekk ñu àndul ak moom nekk Pastef du ma wax sax ñu nekk ci opposition bi ñu nekk Pastef ak activistes yi mais ñoom la ñuy jàpp di leen toroxal Assane Diouf a ngi nii barki démb ñu ngi ko jàppaat ci lan ci saaga yum saaga woon depuis deux mille vingt jàppoon nañ ko si ba tëj ko ba mu tëdd penam ba pare ba génn mooy offense au chef de l' état ak injure publique xaw ma lan ak man ñu jàppaat ko ci ne loolu lañ koy toppee ñoom daal police ba lañ nekk mooy sûreté urbaine ak DIC yore seen ay téléphone di seetaan réseau sociaux yi di xool ko wax lu ñu la jàppee moment boobu noonu ñu ngi agressé mi ñi ci mbedd mi Sénégal amul benn sécurité mais seen armada yi ngeen di génnee bu procès amee ak répression bi ngeen di def ci opposition bi ah rawatina ak waa Pastef ak activiste yi mais def leen loolu ci banlieue bu Dakar bi ndax mu am sécurité mais nit ñi duñu ay bandi duñu ay woyu dam leen jàpp ci bandi yi ak woyu yi te yéen bandi yi ñu ngi seen biir ñoom ñooy def détournement deniers publics ñoo fiy saaga nit ñi ñoo fiy menacer nit ñi Pape Malick Ndour demul ba cité kër góor gi taxaw fa sans autorisation naan day menacer Ousmane Sonko naan ko boo wuy jiwul dinaa yebal cinq mille personnes yu ñëw jël si la mel ni moom mooy justice loolu bu ko keneen defoon heure bi mu ngi ci kaso bi beneen booy bu mu àndaloon booy bi yorewul micro di wax ñëpp di mun dañuy dem taal kër Ousmane Sonko ana kooku dof ndey parce que moom mooy xaritu Amadou Sall nee nañ mu ngi affiché wu ak moom temps yi koo xam ne tekkiwul dara yore jaaseem yore sémmiñam di wër di menacer nit ñi di leen saaga ay ndey di def ay live di saaga ndey te nit dof live la def saaga ndey te saagawul kenn bi mu paree mu jéggalu même bu jéggalu wutoon kenn waru ko def dara parce que enal nañ ko parce que Ousmane Sonko la àndal ñu jàpp ko tëj lii mooy lan kaso ya ngi fees dell te wa passif ñoo fa nekk harcèlement judiciaire bi ni lan la acharnement judiciaire bi lan la li dafa ëpp c'est trop xana Macky Sall mom moñu gën nday wala moñu gën bàyyi mo wa kërëm ni bañu bokk ñu and ak Ousmane Sonko luñu wax mu japp leen ci kasso bi tay ji ñu mu japp duggal ci kasso bi yëpp tañ bokk passif ak yenn activiste yi defuñ dara xol amibal Djim ñu japp ko parce que lan képp ku am problème euh, ci opposition bi wala nga dund injustice comme ñoom capitaine Touré ak ñeneen ak ñeneen nga xam ne Macky Sall da leen a jaay doole via Copper euh, Express mu dajaleel la fa xaalis pour dimbale la doole jooju Pastef am ba téye Sénégal loolu moo leen métti di doxal Sénégal maa ngi dégg Cheikh Bara Ndiaye sax nee na boo gisee xale yi fees dell ci centre yi pour mën a bindu ci révision euh, liste électorale bi mooy ne Bassirou Diomaye Faye moom moo ànd ak yenn xale yi nekk Pastef di coordonné di sensibiliser xale yi pour ñu dem voté ji initier bracelet yi léegi nag loolu moo leen mitt te ñoom loolu ñoom ñoo ko waroon a def xale yi Pastef yi bëri tay ñu ngi ci réseau sociaux yi di wax nit ñi dama leen bind ji rôle état fu nekk nii waa Pastef ñoom ñoo koy def te pourtant code électoral dafa wax ne bu fekkee ne du année électorale dañoo war a def révision six mois su fekkee année électorale la ñu def trois mois ba pare boole ko ak ay publicité def ay bande annonce ci télé yi ci rajo yi ci journaux yi bépp support médiatique ak ci panneau publicitaire yi ci mbedd mi pour nit ñi mën a dem bindu ji ñi nga xamante ni ay primo votant la ñu dem bindu ñi nga xamante ni dañoo bëgg a changer lieu de vote ñi nga xam ne seen ay carte d'identité ak seen carte électeur dafa réer ñu dem defaraat ko mais loolu mooy rôle état leen ko waa Pastef di ko def ngeen leen di endal xam ngeen ne Sénégal Ousmane Sonko lañ bëgg léegi nag comme yéen a yore police yéen a yore état ngeen ne doole ngeen koy fajee mais lii ça ne peut pas continuer parce que ëpp leen nit ñi doole mënuñoo nekk ci benn dëkk boo xamante ni da ngeen di jàpp ay nit di leen tëj te defuñ dara lii mënul tiital kenn maa ngi gën a encouragé yi na ngeen gën a dem bind gi gis nga seen procès yi nii seen procès xawma procès en appel xawma diffamation seen yu ñàkk xorom yooyu bulan leen sax lijjanti lolo. nang taxaw taku, Ousmane Sonko amul benn mbindeef bu nekk Sénégal wala benn juge wala benn procureur bu naan da ngay tere Ousmane Sonko candidat loolu mënta c'est impossible parce que li upi ci Sénégal Ousmane Sonko lañ bug. te wane nañ ko Ousmane Sonko fu mu nekk il est élu moralement il est plus légitime que Macky Sall te demaguñ élection parce que Sénégalais dañ ko bug. ba pare que dañ koy wane. léegi nag comme moom mu ngi yore ay bandeem police yore ay bandeem gendarmerie yore ay bandeem ci justice bi ak ay procureur yoo xam ne ay voyous lañ ñu jàpp nit ñi di leen tëj quoi di leen enlever di leen séquestrer mais loolu c'est du banditisme d'état loolu kenn mën na ko tuddee leen lu dul banditisme jàpp nit ñi di leen takkal ay bracelet électronique xoolal El Malick bracelet électronique pour lan su ma doon moom du ma ko nangu dañ may tëj kaso moo ma gënal ñu may takkal bracelet électronique mel ni jaam bracelet électronique Macky Sall ak waa këram lañ ko war a takkal ñoom ñoom ñoo ko mérité takkal ko Bodian inspecteur des impôts ay domaines boo xam ne deful waxul bindul deful dara ah xam nga ñële sax nee nañ dañoo def post Facebook donte waruñu leen ci jàpp mais Bodian deful dara moom moom dañoo yeewu rek convoqué ko ba mu neex leen ñu takkal ko bracelet électronique di ko surveiller mel ni ku nekk ku nekk ak ay bandi quoi.

faut bande yooyu lu état war nako def motax ma ngi lancer appel jeunesse bi yeb donte xamna ne ils sont déterminés bëgg nañ changement te 2024 la ñuy xaar donc mom nak xeex la bëgg da fay provoquer nit ñi parce que amna ay ay ay ay matériel de répression yam bëgg na fi def ay provocation yam ba dëkk bi yëngatu élection baña am mais lum bëgg dinañ ko ci fekk lépp lu mu ko jaral dinañu jaral lu ko ëpp alaykum wa rahmatullah